Euh, boo ko seetee ci digganteem ak sàmm ngorom ci digganteem ak liggéey ndax da daan na ne as gor bu bu bu bu bañee day gor ci dara te loola tax na mu ñaaj àll bi dem ba kuppantum googee def fa ay tool di fa bay ngir bëgg a dundee lu lew ak bëgg a a yor ak njabootam ak bëgg a mën a sàmm diineem ak bañ jotaay bu ne wala barab bu ne ñu gis ko fa ngir xam nak ki mu représenter ci kaw suuf moy kan muy Cheikh Ibrahim borom darul Mawti te lu jitu muy doon Cheikh Ibrahim la ko yalla jox pas-pas bobu ndax Camérien ne jitu loolu. mbay mom <laughs> mom rek mo doon bëgg-bëggam amul amul won benen bëgg-bëgg sax bu dul mbay. ndax seigne touba mo digalon mam tiar ne ko nga fonku mbay ndax bo fonku mbay lo am lu mu bari bari da nga ci jël jënde ko luñ bay ndax nit mëna ñak lek te li ñuy bay rek maanaam maanaam li ngay lekk lu ñu bay lay doon loolu suñ waa moo dénkoon maam Thierno ni ko na nga fonk mbay ndax loo am lu mu bari bari danga nga ci jël jënde ko lu ñu bay. waaw maanaam Serigne Abbas li mu doon ni ci borom daaru Moti nuróole ko ak moom dafa bari mën nañ cee jàpp mbay ndax borom daaru Moti moo dàqoon a bay ci Sénégal borom daarul Moti président France. décoré na ko takkal ko màndarga médaillum ordre national du mérite agricole te booba dañoo tànnoon deux cent cinquante agriculteurs maanaam ñaar téeméeri béykat ak juróom fukk ci li France yi li foon yépp ci ci àdduna bi Sénégal gi ñaara ca bokkoon muy borom Daaru Muxti ak Serigne Modou Moustapha euh, loolu kiimaan gi cay feeñ mooy borom Daaru Muxti bi ko Serigne bi bàyyee njaboot gi di dem ci géej gi mu jógee Mbàkke Bari dem Mbàkke Bawol te ni woon dugub de bu fekkente ni mbéy rek moo koy mayee dootuma ko ñàkk booba sëñ Modou Moussa ci juróom-ñaari at dal ca lay toll dal alquran mu tàmbali di béy di béy ba sëriñ Modou Moustapha man a béy di béyandoo ak moom néewul sëñ Modou Moustapha sama dooma man kat mënatuma waaye day béyandoo ak moom ba ñoom ñaar soo demee ci journal officiel bi le 11 mars 1938 de liste fekk ñaar à nit numéro 129 Ibra Fati marabu Adar numéro 160 Muhammadou Mustafa, cultivateur à Tindodi kon ràññikoon na lool ci bay mom borom Darou Mouhty Serigne Abbas itam foofee la tegoon qui mbirum bay mi mom bu jëkk bi nekkee daaru daaru dafa xumb mu ne daaru mën a su fee bay maa moom nu ànd dem Cameroun nu di fa bay boobu Cameroun fii dix kilomètres la su suñ dugg dëkk bi waaye ci dëkk bi nag la ñuy roote booba ah, nu dem bayi foofa ban fa bayee mel na at ñaari at mu jógee fi jàll cëski cëski fii mat na vingt kilomètres mu bay fa léegi nag mu dem ba ah, Koupantoum foofa la bayee foofa la ak kër waaw def fa daara waaw def fa daara yóbbu fa dongo yi bu nawetee moom moo fay demal boppam toog fa waaw ñu di fa bay day wàññi jiwu boppam day jënd engrais am day jënd fongicide tracteur yi biñ daataan joxe tracteur fekk na mu indi ñaari tracteur jële ko itali su bayee gerte gi bàggale foofa la koy angaar toog fa ba xool jiw yi mu nar a béy déwén dagam yàlla may na ko su ko xoolee bàgg la soo ko jaay li ci des engrais bi day jënd mu nawet waaw kii yor micro bi tey muy Habib Diène moo jaay daanaka jaay lu ma 30 tonnes engrais ñu ko fii ci camion yóbbu ko foofu ba ren loolu la ko defal ci loolu rek la nekk mooy li ma la ne tànk ci liggéey ak jàmm yàlla rek. nekkoon na fii ci Darou Mouhty di béy fu ñuy wax cëski gannaaw ba mu jóge fa. fekki magam Serigne Abdou Khoudous fa wax Cameroun doon fa bay ba 1988 le mujjé bay Cameroun 1989 la dem Sénégal oriental ñaari at yam fa ñëk def dafa doglu ben peul moko dogal ku wax bay di jaawo gerte gam fa ñëk di bañ koy ji ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñibbi àjjana mooy 1989 ca déwén sa 1990 mu béyaat fa 1991 ca la dem ci président communauté rurale ba ñaan fa suuf ñu may ko ko en 1891 mu gor ko yóbbu fa taalibe yi ñu gor ko mu tuddee daara ja daaru salaam sëgiñ sëgiñ benn déeg la bu mag mu nekk ca wetu foofa mu tuddee daara ja daaru salaam doon ko dàkkantale ci déeg boobu muy daaru salaam sëgi daaru muti ba Tamba boo gisee mu jëggaani ko fi boppam la bëggoon yoo xam ne yi ëllëg yi si biir goneem yi duñ nekk kenn fu nuy bay buñ bëggee bay goneem yi duñ nekk kenn fu nuy dëkk buñ bëggee dëkk loola nag day wone danuy won nun ne liggéey rek am njëriñ waaw nde bu toogoon bañ a bay itam li muy am mooy ëpp ci mooy ëpp mbay mi waaye nag noo dafa bëgg noo daf bën a xiirtal ci liggéey bi nàmpatal ay doom ci ne leen liggéey rek moo am njëriñ loolu rek tax bëggul ñu toog fi di taxawaalu wala ñu toog fi di tukki wala ñu toog fi ñu naa jàppal fii bàyyil fii daa bëgg ñu dem ca tool yi liggéey yi am lu ñu jàpp ndax lu mën di xew jaay téeméeri bërigo denc juróom-benn fukki bërigo dugub soo ko dem ci taalibe yi lu dal xel la dal nam xel. قد صدق بالله fi mu daa béyee muy Cameroun euh, jege gum jege woon daaru ak xat gum xatoon moo tax mu bàyyi woon fi dem bu Koumpentoum lu mat trois cent cinquante quelques kilomètres pour bàyyi foofu nga xam ne jóge fii dem foofu rek yomb ci gone waxoon na balaa sax mag li mu bëgg def mënu ko def fii looloo ko yóbbu Koumpentoum maa ngi fàttali ko daaw dem naa fa ji waxtaan ma ne ko man na fi mu toll su fekkoon ne laa comme yow dugub laay bay ndax dugub moom mën na si ko koo lekk mën na si na koo denc waaye gerte moom comme mën na si ko yi lépp mu ne man man bu fekkoon ni maanaam mbayum dugub rek la du ma génn Darou Moussi loolu la ma wax moom ni ma yow dañoo wute man bu fekkoon mbayum dugub la rek jarul lu ma génn Darou Moussi kon fii laa koy bay waaw man dem naa ba ci tool gis naa ko amoon na fa ay projet yu rëy waaw moom la ci xam ne ne waajuram euh, mo gor dëkk bi euh, yaatu lool suuf si yaatu lool waaye euh, ci ak bëgg liggéey ak njàng ak dafa Euh, dox lu sori dem ba ca tool yi ci ci ci wetu tàmba def foofu daara euh, di fa jaamu yàlla ak liggéey. mooy ki nga xam ne moo fa daan demal boppam di taxawe lépp xanaa kay bi mu demee ba euh, mage rek xalifa gi ñëw mënatul yenn yi moo tax mu toog waaye ci daara jooju foofu la féete woon di leen yar ci liggéey ak jaamu yàlla. ak mandu doyloo li nga xamne mom la suñu borom jox loolu képp koo xam ne xam nga ko xam nga ko ci lolu ci lolu tamit ci la yar taalibe donc dong nek nekk fa di liggey ak jaamu yàlla du ko ni def len fa yóbbu rek ñu gor daara ja bayi len ko ñëw daaru muti dedet seigne Abbas liko ko dale ci 1991 ba kere biñ koy woo le 5 janvier 2016 ni ko na ñëw Serigne Cheikh Khady wàcc na ab liggéey mu ñëw di borom Daaru Muuti ca daara ja lañ ko wooyee de 1991 ba 2016 li Serigne Abbas di nekk ca daara ji moo ëpp li mu doon nekk Daaru Muuti mu nekk fa di bay at euh, nawetam ba mu fa njëkk a nawet juróomi bërigo yi kemb lañ fa bay euh, ñetti bërigo yi ñu bayal ko Serigne bi benn bërigo mu jox ko jëwriñ ji ñu doon wax euh, Galaay Fall Benda bërigo bu mu jox ko ki ñu doon wax xend ñay doonub talibem le daarul moxti yal dal nako sunu borom wanaleeg serigne mu serigne ba ndax wacc na liggéey ñu yor fa ñaari nak ak men mbam mbam ma dawul liggéey dañ ci daan tak saret rek pour di ci doxi seeni soxla ak di ci dem tol ñaari peeri nak lañ fa yoron ñeuk fa bay bari goy gerté waye dem nañu ba seenu jiwu egg ci six tonnes at mii nga xamante ni moom la ñu génn te sëñ bi wàcc ci ab liggéey dañoo wàññi jiwu ba quatre tonnes des ca quatre tonnes lañu ji kon ña nga tàmbalee woon ci cinq cent kilos dem ba six tonnes ñoral nañ fa itam ci gerte am na ci at yoo xamante ni juróom benn fukki tonnes soixante tonnes doon nañu ko fa eh, ñoral te daara la xamante ni ca ndorte la bu ñu masaan nawet bu ñu masaan nawet ba nawet bi jeex dañuy ñëw buru jotee ñu dellu mais cent 1997 ba fi nu toll muy noor muy nawet foofee la ñu féetee demoon nañ sax ba doon fa bay mbayum noor tamaate waaye seen jafe-jafe mooy teenu wëgg ba fa nekk euh, ak bu ñu ñoralee bu ñu bayee mbayum noor fu ñu koy jaayee ji ndax ba ñu fay doog a dem dëkk bu ñu daan wax silaan foofu fa la ñu daan dem di fa roote ji bu nawetee sëgiñ déeg boobu ñuy dakentale dara ji ci la ñuy root di ci naan di ci foot di ci def li ñuy yittewoo ci am ndox ba nawet bi jeex bu nooree ñu wat salat kon dal ni borom mu ci defoon bayyi ko mbacke kayor ñew sañca pak bi di daarul muuti mu metti lool amul ndox ay ay rab rek ñoo fi nekkoon daru salam sëgiñ mm, dañ dan tëdd ba guddi bukki yi ba ci buntu néeg yi ngara yi ak ak golo yi ay rab rek ñoo fa nekkoon waaye keroog bi nga xamante ni sëñ bi euh, dajale na leen fa ñuy wax merietu ñoom ñey dem taalibe mu dajale leen ñaanal leen ñu takk seenub saret dem yàlla musal na leen ba ñu dëkk dëkkandoo fa ak bukki bu guddee dañuy dégg nag yi di tuur ndox di yëngu bu ñu génnee nii seen bukki yi di daw waaye yàlla aar na leen ba euh, kenn ci ñoom walla jur ga mosu faa loru kon loolu ci gàttal rek lu Serigne Abbas doon ne la ci borom Daarul Muxti ci bëgg mbay yàlla boole gi boole. ak rëcc ci am. fii ak fanu jëm. fii ak fanu jëm. fii ak fanu jëm. fii ak fanu jëm. fii ko jaajëf wax ko jaajëf wax leen ko jaajëf sëñ Abbas jëfam dafa wér. على السلام